sëriñ cheikh xadi mbàkke sëriñ cheikh xadi mbàkke mi ngi feeñ jamono nag ci atum 1923 ci dëkk boobu nag waajuram goroon di daarul muxti ci dëkk boobu nag la feeñee jamono muy doomu soxna xadi juufa ak maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru sëriñ cheikh xadi mbàkke nag bi mu feeñee jamono nag ci atum 1923 maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru nag miy waajuram magam nag sëriñ tuubaa cheikhul xadim nag la ko faye mu bokk nag ci turandooy cheikhul xadim yi maam ceerno nag tudde nag Juuf ak maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ñu man cee ràññee nag magam sëriñ Masamba Mbàkke ibnu soxna Xadi Juuf ibnu maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru soxna Abi Mbàkke bintu soxna Xadi Juuf bintu maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru sëriñ Moodu Mawlud Mbàkke ibnu soxna Xadi Juuf ibnu maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ak moom sëriñ Cheikh Xadi Mbàkke ibnu soxna Xadi Juuf ibnu maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ñett nag la bokkal waajur wu góor ak waajur wu jigéen ak moom nag muy ñeent ngir lëkkalee nag njaboot googu mu bokkal waajur wu góor ak waajur wu jigéen nag ñoom ñooy ñan taawub soxna Xadi Juuf bii nag ak maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru di sëriñ Masamba Mbàkke sëriñ Masamba Jóob la ko maam Cerno Ibrahima Faati mbakke ndaamal daaru nag tuddee guddul aw fan moo nekkoon nag taawub soxna Xadi Juuf ñetteelu doomu soxna Xadi Juuf ak maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru mooy soxna Abi Mbàkke mii soxna Abi Mbàkke nag bi matee dem kër sëriñ Cheikh Silla moom sëriñ ma paate Silla nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Cheikh Silla nag am nañ ak njaboota soxna moomi silla ak soxna maymunatu silla soxna moomi silla mii nag jutta màgg laataa muy dem kër nag la génn àdduna soxna may silla bém matee dem kër sëriñ koso mbàkke assuloo nag lañ ko jébbaloon moom sëriñ moodu awa balla mbàkke soxna may silla mook sëriñ koso assuloo nag am nañ ak njaboota ñu man cee ràññee nag soxna baali mbàkke sëriñ fallu mbàkke sëriñ mustapha mbàkke sëriñ koso gànnaar mbàkke soxna awa mbàkke ak sëriñ abdul xuddoos mbàkke ñeenteelu doomu soxna xadi juuf Moodu Mawluut Mbàkke moom itam nag jot ta màgg laataa muy xàmmee nag la génn àdduna ñaareelu doomu soxna Xadi Juuf bi ak maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru moom nag lañ fa séene waxtaane tey jii sëriñ Tuubaa Cheikhul Xadim nag la ko maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru nag tuddee laataa sax ñuy xuus nag ci turandoo Cheikhul Xadim wi ñu wax leen nag waajur yi ko meññi nag ñoom ñooy ñan soxna Xadi Juuf sëtub nag buur la woon dëkk bu ñuy wax na kër may sa ndumbe nekkitim nag ci wetu dëkk bi nag di mbaaba gaaraasa la nekkoon nag ci kër nijaayam nijaayam nag moo ko jëloon nag jébbal ko maam Thierno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ngir maam Thierno nag dëkkoo ko booba nag maam Thierno nag mi ngi njaareem njaareem itim nag la ko ko jébbale boole kook alal ju takku nag ak itim nag ay takkaay ginnaaw bu soxna Xadi Juuf nag ñëwee ci loxoy maam Thierno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru la fa am nag ñeenti bant yii nag ñu leen tuddal moom itim nag daaru muxti lañ ko denc moom soxna Xadi mi mu nekkoon nag jigéen joo xam ne ni nag jigéenu royukaay la ndax sa tub buur la mu ñëw nag ci roon maam Thierno nangoo nekk taalibe bëgg itim lu baax waajuróom wu góor nag mooy maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru rakku cheikhul xadim la doomu maam Mor Anta Sali Mbacke la moo nekkoon itam nag bras seexul wu cheikhul xadima lu takkoo takkoo takku itam nag defar na ko itam nag ci yoonu murid wi moo sanc itam nag dëkk bi sëriñ cheikh xadim Mbacke feeñe jamono muy daarul muxti moom sëriñ cheikh xadim Mbacke nag bi matee dal alxuraanul karim daa fekkoon nag waajuróom maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru jébbaloon ko nag magam sëriñ Moodu Awa Balla Mbacke ci loxoy sëriñ Moodu Awa Balla Mbacke nag la ko maam jëlee yónni woon ndaw nag di ko xamal ne nag soo demee nga nekk nag ku maslaa ndax diggante Modou Awa Balla ak Cheikh Mbacke moomu xam naa tàqale leen nag du yomb soo demee nag nga fexe fexe fexe ba indil ma nag Serigne Cheikh Mbacke moomu dama bëgg nag mu jàng alxuraanul karim bi ndaw li ñëwee nag Karathil nag la fekk nag Serigne Modou Awa Balla Mbacke nag ak Serigne Cheikh Khady Mbacke ginnaaw bu mu waxtaan ak Serigne Modou Awa Balla Mbacke nag waxtaan wu xaw a yàgg la koy xamal ne borom ma yónni Serigne Cheikh Mbacke mii nee sëriñ Modou Awa Balla Mbacke nag wax ak sëriñ Cheikh Xadim Mbacke di ko xamal ne daa mel ne de dañ ñoo bëgg a tàggale demal wuy ji nag suñu waajur wa maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru ginnaaw buñ ko fa jëlee nag lañ ko indi maam Thierno nag dalal ko alxuraanul karim ginnaaw bi nag la ko jébbal sëriñ Soose Njaay ci loxoy sëriñ Soose Njaay nag la jànge nag ba mokkal alxuraanul karim ginnaaw bi nag lañ ko jël yóbbu ko nag miri na sill ngir mu jànge jëfa nag xam-xam ci ñaari ëtt yi nag la jaar nag ci wàllum njàng ginnaaw bu mu jàngee ba noppi nag la ko maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru nag jëlaat jébbalaat ko nag kam ko joxoon muy sëriñ Modou Awa Balla Mbacke sëriñ Modou Awa Balla Mbacke nag moo ko yar moo ko tarbiya moo ko defal itam nag lu bare bare bare bari moo ko yebal nag ci suuf si nga xam ne maam Thierno nag moo ko goroon nag muy xabbaan ci dëkk bii ñu tudde nag Touba Dieng Touba Dieng googu nag fa la sëriñ Cheikh Khadim Mbacke nag nekkoon taxawaloon fa daara amoon fa kër itam soxna sim njëkk a dëkkool itam nag foofu itam nag la nekkoon ak moom muy soxna Faama Guèye soxna Faama Guèye sax moom meññ itam nag doom ji sëriñ Cheikh Khadim Mbacke njëkk a gis muy sëriñ Modou Awa Balla Mbacke ñu ko doon wooye nag sëriñ Modou Kara Mbacke sëriñ Modou Kara Mbacke mii sëriñ Modou Awa Balla Mbacke nag moo ko fa jël see joxoon ko sëriñ Amsa Mbacke nag mii rakkam sëriñ Amsa itam nag moo ko jëloon moom sëriñ Modou Kara mii yóbbu ko nag ci dëkk bu ñuy wax nag kaneen njobbu ngir mu jàngi alxuraanul karim ci dëkk boobu di kaneen njobbu sax nag la génnee ko doon jàngal alxuraanul karim di sëriñ Moussa Samb nag denc ko fa soxna Faama Gueye itam nag amaatoon nag geneen njaboot Awa Balla Mbacke ñëw nag ci suuf soo boo xam ne nii nag maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru nag moo ko goroon ñu tudde woon ko nag xabbaan ci dëkk boo xam ne nii nag moom la ñuy wooyee Touba Dieng eggee nag ci dëkk boobu nag di Touba Dieng la ànd tuuti nag sanc fa ak kër tudde ko nag sanc ba taxawaloon fa nag daara te daara joojo kër ga a ña fa newoon ñu mën caa ràññee nag rakkam sëriñ xalit Mbàkke moom maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru mën caa ràññee nag sëriñ Ibra Siñaan sëriñ Abdou Siñaan sëriñ Cheikh Sène sëriñ Bàcc Mbay sëriñ Cheikh Sam sëriñ Moustapha Faye sëriñ Moustapha Siñaan sëriñ Cheikh Mbàkke moom sëriñ Moodu Abib Mbàkke sëriñ Góora Ndooy ak ñeneen ak ñeneen nag ñu nekkoon itam nag ci daara jooju daara jooju nag wéy na fa nekk itam nag ci dëkk boobu nag di Touba Dieng ci tool yi ñu doon bay nag moom la tudde woon nag Baxdaat ba ci atum mu bàyyi fa nag lenn itam nag ca daara ja dil si nag yabal fa nag daara daara jooju nag ña fa newoon ñu atum 1966 nag mu taxawal nag daara nag ci suuf soo xam ne ni nag mi ngi ko jëlee nag ci maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru mooy suuf suñ tuddee nag yaari Dakar ginnaaw bu mu fa goree daara nag la fa dëkk ba nag tudde ko daaru salaam ñu kon koo xam nag ci yaari Dakar ci 1966 la nag daara jam fa njëkk am ku ñuy wax Serigne Cheikh Dieng moo fa neewoon Serigne Cheikh Fall Serigne Ousmane Fall Serigne Alioune Diop Serigne Assane Diop ak ñeneen ak ñeneen ci 1967 nag lañ jëlee nag daara ji newoon yabal indi ko foofu ku ñuy wax Serigne Ibrahima Mbaye nag moo fa newoon Serigne Cheikh Fall Serigne sëriñ Manta Ndiaye sëriñ Thierno Diop sëriñ Gora Mbaye sëriñ Mor Bassine Dieng sëriñ Thierno Diop nag sëriñ Aline Diop itam nag ma ngi sëriñ Cheikh Diouf nag ma fa woon sëriñ Talla Sow nag ma fa woon sëriñ Mor Bassine Dem nag ma fa woon sëriñ Malick Niang nag ma fa woon sëriñ Ngagne Diouf nag ma fa woon sëriñ Pape Niang sëriñ Cheikh Niang ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mu wéy nekk nag ci dëkk boobu nag mu tudde Daaru Salaam ñu gën koo xam nag ci yaari di liggéey Fatim Mbàkke ndaamal daaru nag mu jox la cër ñu ci baree baree bari nag ci ay magam nag ak i rakkam mu fob nag ak njabootam nag séddale leen nag ci kër yooyu ñii mu joxe leen fa nag ñu yar leen digganteem ak magam sëriñ Moodu Awa Balla nag nekk itam nag diggante nag bu xóot a xóot a xóot ba daana wax nag lenn itam nag ci ay taalibeem sàmm leen nag sama digganteeg yéen sama digganteeg sëriñ Moodu Awa Balla nag kenn xaju ci sëriñ Moodu Awa Balla nag sama mag la sama waajur la sama sëriñ la suñu baay ba nag moo ñu boole woon nag di maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal ci atum 1982 sëriñ Abdul Xuddoos Mbàkke nag ñëw nekk nag ñaareelu xalifa maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ba ci atum 2003 ci at moomu nag la toog nag ñetteelu xalifa maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru sumb nag ay liggéey ngir dëkkub maam na boobu mu doon xamal nag muridi rawatina nag ñim bokkal ëttum maam na bi luñ ko man di joxitim nag ci addiya fañ bëgg mu dugg fa dong nag la koy yóbbu fa seeni wuta wor nag benn murita ngir nag addiya yi ñu koy jox song nag ay liggéey nag loolu nag ci ay kàddoom yoo xam ne nii li muy doog a toog xalifa nag la ko yëkkati woon jëmale ko nag ci sànce yooyu nag muy liggéey nag ngir maam Thierno man mi nga xam ne itam da ngeen maa dayloo ci alali borom daal di ma ko jox ma ànd ko yéen loolu it may te daa tënku te it moo nekk ci man foofu ma yéene kenn jox ma ci dërëm mu dem ci borom daaru ma jaaddale ko mu dem feneen loolu moom duma ko def te it ngeen ñaan ma ko may itam ba loolu mën a sax kon nag yéen taalibe yëpp maa ngi leen di nuy di leen sant leen gërëm kàddu yooyu nag mooy kàddu Serigne Cheikh Khadim Mbacké mu ñëw nag toog nag xalifa ci bisu 22 avril nag 2003 mu nekk nag ñetteelu xalifa maam Thierno Ibrahima Faty Mbacké Ndaamal Daaru taxaw nag taxawaay bu am solo nag ci ëttum maam Ibrahima Faty Mbacké Ndaamal Daaru def Daaru Muxti nag ab ville nag dolli courant bi dolli waat dëkk ba nag ci ab natt fexe itam nag ba yenn quartier itam nag amul yoon màggalug maam Thierno Ibrahima Faty Mbacké Ndaamal Daaru nag gën koo jox itam nag gëddaam gën a dooleel nag sëriñ Bass Abdou Khoudoss mbakke nag ci porte-parole bi nekk nag ku koy défendre lépp nag lu yittee Daaru Muxti itam nag mu taxaw ci ba daaru muxti itam nag bokk itam nag ci dëkk yi ñuy wooyee deuxième capitalu mouridisme mu song nag ay liggéey nag ci ginnaaw bu mu toogee xalifa mi nga xam ne nii nag moom la toog nag ab toogaayam ñu mën cee ràññee nag quartier bii nga xam moom lañ tuddee nag daaru baylaa na fa nag jumaa am fa kër am fa itam nag am pénc kër ko nag ci ak xilaafaam jumaa ji nga xam ne nii moom la fa sëriñ Modou Awa Balla Mbàkke defoon nag ci péncum daaru muxti mu yeesalaat ko dolli waat ko ba mën nañoo wax ne nag nag wala quatre quatre-vingt pour cent itim nag moo ko defaat nag ci jumaa ja yeesalaat nag bayti di fi ñu denc maam Thierno yeesalaat nag maqaama yeesalaat nag mbaar mi ci biir kër gi yeesalaat nag daaray kaamil defar nag mbaar mi ci bitti di fi ñuy amale cérémonie officielle bi mu defar itim nag jumaay daaru Rahman dëkkub sëriñ Modou Awa Balla Mbacke te doomam sëriñ Fallou Assou Dieye nag nekk fa mu tabax fa jumaa Madina di dëkkub sëriñ Modou Awa Balla itim nag mu tabax fa jumaa yaari Dakar itim di ab dëkkam itim nag mu tabax fa jumaa bërëb biñ tudde mawlud bi itim nag mu yeesalaat ko barabu magam sëriñ Modou Abib Mbàkke itam nag mu yeesalaat ko marché bu daaru muxti itam nag mu toxal ko ngir mën a amal nag kër maam Thierno armeel yi itam nag mu miire ko mu defar itam nag morgue bi defar itam nag bërëb bi ñuy jullee nag waaye làqu yi bépp malaat boo xam ne nii nag feebar nga su ko yëgee nag def ci dooleem moo xam ñu féete daaru muxti moo xam ñu féete tuuba ak faneen nag ci biir réew mi Touba nag taalibeem bu ñu doon wax nag sëriñ Ablaye Seck la fi bàyyi woon bépp boo xam ne nii nag war ngaa faju nag ci hôpital bi ñu tudde Matlaboul Fawzeyni wala ci yenn ci hôpital yi yi xam ni nag moo ci aji itam nag ca kooka suñu paree sëriñ Abdoulaye Seck nag yit ko facture ba mu boole kook nag sëriñ ma jaw nekkoon nag secrétaire nag ngir nag mu fay loola noonu mu ko amale woon Touba nag ci sëriñ Abdoulaye Seck noonu itam nag ni la ko amale woon Daaru Muxti amee ko woon fi nga xam ne ni moom mooy nag ci biir réew mi buggul woon nag kenn am jafe-jafe mu nekk nag nit ku am baatin waaye nit ku am itam nag xaas waaye la yor nit sax daana ñëw nag yéem ko ci néegu ñax boobu muy fanaan mu di ko ju njëkk ja nag laa bokk nituk suñ borom gim nekkoon nag ak ku sell kooku mu nekkoon nag tax na nag kenn musta dégg coowam kenn musta dégg itim nag baatam lu nag lu soxal maam Cerno Ibrahima Faati mu nekk itim nag nit ku sell ba soxla soo man di wax su doonee su baax su nee la amut solo bay nga dem nag te xam ne nag loola dana faju waaye itam nag lépp loo xam ne nii itam nga ko ba mu wax na ne loolu itam nag amut solo bay boo nag bañ caa defati nag sa yaakaar xam nga ne loola nag du jëm fenn benn baat mu ëppoon itam nag ci ak kàddoom muy solo nekk nag sa intérêt intérêt xamal ne loola moom dana jar su la ko waxee itam nag te nga bëggoon ca intérêt tam waxee la ko baneen côté ba xamal na loola itam nag du dem fenn soo delloo nag ci marché bii ko sëriñ Abdul Xudoos Jaw nag defal di taalibe sëriñ Abdourahman Mbàkke moom sëriñ Abdul Xudoos Mbàkke mi ngi sant nag bu baax a baax nag ñetteelu xalifa maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ci liggéey nag bu am solo nag bu mu def nag ci yoonu ci dëkk boobu nag di daarul muxti toogaayu maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke nag bu mu toog te yàqu ci nag dara dëddu nag gu mu dëddu woon nag àdduna sàmmitim sàmmoon nag santaan def suñu borom bi rawatina nag ndigalul waajurum nag maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru lu yaatoo yaatoo yaatu daal la ñu suñu Abdul Xuddus Jaw nag di ñu xamal ci ñetteelu xalifa maam Cerno bii di turandoo Cheikhul Xadim nag ñu teewlu ko jaajëf sëriñ Cheikh wàcc nga jëf nga ba sottal soññee nga sa jëf yi rëy na yéeme nga yal na la buur yàlla teral rëy la ci jëf war na ku ne góor ak jigéen mag ak gone yow li nga jëf jarul wane waa daaru Diouf imaamuna xayral jaza wa cheikhina ak cerno mim fi doon jëfal fukki at ñaar yi fi toog fu ñu toll xeer yaa ngi ñu juub suuf ak ciment gas ak yéeg jaa jëf ne yaa jëf ba matal sant la war na kuy jullit ngir yaa jëfal bépp jullit sottal nga mboolem say mébét maam cerno yaay ku ko bégal rëy yéene ak kawe yitte nga yore daaru yaa nite ak a wayaf te am yitte buur yàlla moo ko ko beral ñaanal ko ñun lañ ko deseel te bor la kat buñ ko ameel yaxya naal ca daaru mooy ki ko matal moo du mbàkke may magam moo ko yoroon ci ak ndawam jox na ko lëf ci ay jikkoom mu boole kook lañ ko tibbal yaatoog lewet ak bari jom ak muñ la boote woon ñoñam kuy jiite war naa roy ci moom kon lu mu def mu dig jubal ahmadu bamba gawsuna mooy kanu tuddee cheikhina moo tax mu làq ndam huna yowmal xiyaam jëfam du niil xibaaru dem ga ak a tiis daa bete metti lool diis dañoo bëggoon fu ñu ni gees gis ko mu sax jumaa ko wër bay teeg maqaama ku ko wër mu xam ni baay cheikh xadi mbër waa daaru yaay ki leen sagal te doom nga addinaaka siiw ku mel ni baay cheikh aka néew jëfa ma rëy te wax ja néew ko buur dolli teral moom sëriñ cheikh xadi mbàkke nag dëkkoo woon nag nag ay soxna ci biir soxna yim dëkkoo woon nag ñu man cee ràññee soxna faama géey mook soxna faama géey nag am nañ ak njaboot ñu man cee ràññee nak taawam ba kam faye woon sëriñ muudu awa balla mbàkke ñu koy wooye sëriñ muudu kara mbàkke sëriñ xaadim mbàkke soxna maam jaaratullaahi mbàkke Mbacke ak ñeneen ñett ñoo xam ne nii nag dañoo génn àdduna moom sëriñ Cheikh Khady Mbacke yoroon na soxna suñuy wax nag soxna Anta Kanji mook soxna Anta Kanji nag am nañ ak njaboot ñu man cee ràññee nag kam faye sëriñ Abdourahmane Mbacke moom maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru ñi koy wooye sëriñ Cheikh Abdou Mbacke soxna Abi Mbacke soxna Mominatu Mbacke soxna Faty Silla Mbacke yoroon na soxna suñuy wax soxna Ndey Faal mook soxna Ndey Faal nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee nag maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke sëriñ Saalihu Mbacke soxna maam Faty Mbacke sëriñ Ham amsatu mbàkke soxna ami mbàkke soxna moominatu mbàkke soxna nday mbàkke ak sëriñ muhammadan mbàkke yoroon na soxna suñu wax nag soxna sooda wadd mook soxna sooda wadd itam nag am nañu ak njaboota ñu man cee ràññee nag kam fayee waate woon sëriñ muhammadan mbàkke soxna daa mbàkke soxna muslimatu mbàkke sëriñ abdul quddus mbàkke ak soxna maam penda mbàkke yoraatoon na soxna suñu wax soxna say wadd mook soxna say wadd itam nag am nañu ak njaboota ñu man cee ràññee kam fayee waate woon sëriñ tuuba seex saalihu mbàkke soxna maam buso mbàkke sëriñ aydara mbàkke soxna Soxna Mbeen Mbàkke sëriñ Moustapha Absa Mbàkke ak kam faye waate woon sëriñ Hamsatu Mbàkke yoroon na soxna suñu wax soxna Rama Diop mook soxna Rama Diop nag am nañ nag ak njaboota ñu mën cee ràññee sëriñ Moodu Abib Mbàkke ak sëriñ Ousmane Mbàkke na suñu wax nag soxna Maam Busa Njaay mook soxna Maam Busa Njaay nag benn bant lañ am muy sëriñ Moodu Xelkom Mbàkke di kim faye waate woon sëriñ Moodu Awa Balla Mbàkke yoroon na soxna suñu wax soxna Faati Juuf mook soxna Faati Juuf itam nag benn bant lañ am mu faye waat ko nag sëriñ Moodu Awa Balla Mbàkke nag ba tey muy sëriñ Moodu Xadim Mbàkke dëkkee soxna yii nag la dëkkoo woon njaboot yii nag la ci am ngir xamale leen nag njaboot yooyu mu am nag ñoom ñooy ñan doom jii nag di soxna jaaratullaahi bi mu matee dem kër sëriñ Abdou Fatim Soog nag lañ ko jox mook sëriñ Abdou Fatim Soog nag amuñu nag ak njaboota doom jii nag di soxna Abi Mbàkke bi mu matee dem kër sëriñ Koso moom sëriñ Moodu Xabbaan moom sëriñ Mandumbe mbakke nag lañ ko joxoon soxna Abi nag mook sëriñ Koso benn bant nag lañ am muy sëriñ Maam Mor Mbàkke ginnaaw bu mu jógee nag ci sëriñ Koso moom sëriñ Moodu Xabbaan moom soxna Abi nag lañ ko jox nag ku ñuy wax sëriñ Abdou Jóob mook sëriñ Abdou Jóob nag promoteur doom ji nag di soxna maam Faati Mbàkke bi mu matee dem kër sëriñ Hamidun Jóob nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Hamidun Jóob nag am nañ ak njaboot ñu mën cee soxna yëmmu Jóob soxna mu jógee nag ci sëriñ Hamidun Jóob moom soxna maam ko jébbal nag sëriñ Abdu Ndaw mook sëriñ Abdu Ndaw nag amuñu nag ak njaboot doom ji di soxna Ami Mbàkke bi mu matee dem kër sëriñ Koso Mbàkke Gànnaar nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Koso Mbàkke Gànnaar nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee nag sëriñ Basiiru Mbàkke sëriñ Mbàkke soxna Loo Mbàkke sëriñ Moodu Mbacke sëriñ Abdul Xuddoos Mbacke sëriñ Abdul Axat Mbacke sëriñ Abdul Baaxe Mbacke soxna Naar Mbacke ak soxna May Mbacke doom ji nag di soxna Moominatu Mbacke bi mu matee dem kër sëriñ Cheikh Fall nag lañ ko jébbal mook sëriñ Cheikh Fall nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ Moustapha Fall sëriñ Maam Thierno Fall ak soxna Maam Jaara Fall doom ji di soxna Daa Mbacke bi mu matee dem kër sëriñ Amdi Lay nag lañ ko jébbal mook sëriñ Amdi Lay nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ Cheikhouna Lay soxna Say Lay ak soxna Say Lay tim nag mu ndaw doom ji nag di soxna muslimatu mbàkke bi mu matee dem kër sëriñ basiiru fay nag lañ ko jébbal mook sëriñ basiiru fay nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ abdul xaadir fay soxna aysa fay ginnaaw bu soxna musli nag jógee ci loxoy sëriñ basiiru fay lañ ko jébbal nag sëriñ cheikh faal mook sëriñ cheikh faal nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ muxtada faal soxna xadi faal ak sëriñ abdu faal doom ji nag di soxna maam buso mbàkke bi mu matee dem kër sëriñ siidi ñang nag lañ ko jébbal mook sëriñ siidi ñang nag amaguñ nag ak njaboota doom ji nag di soxna mbenn mbàkke bi mu matee dem kër sëriñ koso mbàkke nag lañ ko jébbal mook sëriñ koso mbàkke nag amaguñ nag ak njaboota ñii nag ñooy doomi sëriñ bi kër yiñ dem njaboot yañ fa am ñooy lenn tim nag ci sëtti sëriñ bi mu fob nag ak njabootam séddale leen ay doomi baayam sëriñ xaadim mbàkke nag moomam sëriñ basiiru mbàkke anta ñang nag mii rakkam nag la ko jébbaloon sëriñ cheikh abdou mii toog nag ab toogaayam sëriñ moustapha absa moom sëriñ moodu awa balla mbàkke nag la ko jébbaloon lu bare bari nag ci sëriñ cheikh abdou sëriñ moustapha absa nag moo ko ci def doomam nag sëriñ maam cerno mbàkke magam nag sëriñ abdul xuddoos mbàkke mbàkke moom maam Cerno nag la ko jébbaloon kam faye woon nag sëriñ Moodu Abib Mbàkke sëriñ Moustapha May mi toogoon toogaayu sëriñ Moodu Abib Mbàkke nag la ko jébbaloon sëriñ Ousmane Mbàkke di ki mu faye nag sëriñ Ousmane Mbàkke nóoree ni sëriñ Ousmane Mbàkke nag miy turandoom nag la ko jébbaloon kam faye woon borom koso nag di sëriñ Mouhamadan koso sëriñ moom maam Cerno mu jox ko nag sëriñ maam Thierno Mbacke moom sëriñ Aydara fobaat itam kam fayee sëriñ Moustapha Absa jébbalaat ko nag maam Thiernoom sëriñ Aydara Mbacke di ko xamal ne nag sëriñ Aydara Mbacke mii nag cërub sëriñ Aydara la sëriñ Moustapha Absa mii jikko yi nekk ci yow nag laa bëgg na nga defal ma ko nag ci moom kam fayee sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke mu féete woo ko nag bàyyi ko nag yaari Dakar njabootam gu jigéen gi ñëpp itam nag sëriñ Amsatou Mbacke moom maam Thierno Ibrahima Faati Mbacke ndaamal daaru nag la leen féetale la woon ku ci war a mën a dem kër sëriñ Amsatou Mbacke nag moo lay joxe nag nga dem kër itam nag di sëriñ Modou Awa Balla Mbacke sëriñ Amsatu Mbacke mi nag la ko jébbal woon fa ko sëriñ Amsatu yóbbu woon nag mu jànge alxuraan fa la génnee àdduna kon moom ak njabootam nag da leen a séddale nag ay doomi baayam soo delloo ci way yi ko sëriñ Basiiru Mbacke way moom sëriñ Taala Mbacke mi ngi sàkku nag ci muriti daaru muxti yi ñu jóg nag pooc kii muy waaj a waykat ku leen liggéeyal la muy sëriñ Cheikh Xadim Mbacke liggéeyub sëriñ Cheikh Xadim Mbacke taxawaayu sëriñ Cheikh Xadim Mbacke njariñ daal leen doomu maam Ceerno bii nag amal moom la ci sëriñ basiiru mbàkke wax moom sëriñ taala mbàkke bismillaahi ma àdduwati donn ab daaj way ci mbër mi fi daaru mbiram jarul waaj ko tarde rëy la mbiram dawan laaj ngir nga xam sang mbàkke te am xadal xaaj boo xamul ki ma jubloo di sangu diiwaan di murita di saadiq te donn ndaayaan bay cheikha jaraway yéen murit sant leen kuy murit bi fi daaru jógal feelu leen bay cheikha jara àndal ayam gi daa neex ku ci bégul dootoo bég soxal ba day jeex cig ayam la ak bon di xë di jooyoo dal di yuuxu cig ayam la fi tux meek yu bon yi sanko bàyyi seex a jara àndal la diina bàkkoo cig ayam la fi soroor yi guddee tey weex sun jumaa ji mu yeesal ñépp la neex bàyyi seex a jara topp di daw ba xëy dee kuy muri te du wax lii dundam gënul de waa daaru nanu mbooloo di sant bàyyi seex ku ko deful doo dem nag sa gaal ga day suux sun donnul dëggi baatin di bayti maqaama yeesalaat na ko leeral dëkku sunu maam bàyyi seex a jara àndal ayam gi daa leer ñoo a jara way mbàkke moo taas moo ñu yeb ci saxaaram te laaju ñuy paas jëmm jooju nag mu jagleeloon way yooyu ñu takkoo takkoo takku nag way nañ ko nag ca murid yi ñu mën cee ràññee nag sëriñ xalil ñang sëriñ basiiru mbàkke moom sëriñ taala mbàkke sëriñ abdu ñang taalifkat ahmadu jong baay jagal sëriñ abdul xuddoos jaw di taalibépp sëriñ abdurahmaan mbàkke moom sëriñ abdul xuddoos mbàkke ak ñeneen nag ak ñeneen nag ñoo xam ne nii jagleel nañ nag ay way doomu soxna xadi juuf bi ñu gën koo xam nag ci sëriñ cheikh xadi mbàkke mi ngi génn àdduna ci feebar bu ko tëral ci lëndëm gu mag nag ci bisub talaata ñaar fukki fan ak ñeent nag ci weer wi nag di rakkaat ji gàmm ci atum 1437 nag ci gàddaay gi talaata ñaar fukki fan ak ñeent ci weer wi nag di rakkaat ji gàmm ci nag ci gàddaay gi dëppoo muy mardi 5 janvier 2016 mardi janvier sëriñ Muntaxa Mbàkke ibnu Cheikh Mamadul Bachir Mbàkke moo ko jullee ñu jébbal ko boroomam ci wetu waajuram wa nag di béyti soo delloo sax ci way yii ko sëriñ Xalil Ñang nag way mi ngi xamaleeg nag turandoo cheikhul xaddim wi doomu maam ceerno bi njàmbaar nag gu mu yore woon donn nag gu mu donn nag ay magam waaye donn itam nag bu mu donn itam nag barkeb waajuram am njàngam nag fi mu jaar yar nag gu ko sëriñ Moodu Awa Balla Mbàkke nag yar noppi nag gu mu noppi taxawaay nag bu mu amoon nag ci daarul moxti nit ku sell nag ku mu doon dunduk sëriñ Cheikh Xadi Mbàkke daal lañu ñu sëriñ xaali ñang nag di ñu xamal ci ay way nag yum ko defal ñu teewlu ko boqal ma diixu waaja inchaa allahu jottali leen ak xalima lu nag ma woy fi kay alima yaari daqaar la féete woon di jaamu yàlla mu xëy ba may ko fiy maqaamu ciy àddinaa ka yées te man waram yi waaye sëriñ bi xam na woon na xam yi waroom yi tax na moom mu bañ kaa sóolu waaye jëfam yi dootu dem ba suulu uqal bu kaa u joyle leen ma cheyqu kay doomi soxna xaddi dem te laqu moo doon gor te doon baay ba cerno ca diine jaak dëdduga gor si cerno moo fonk baay ba fonk ñam ko bokkal kum ci gisaa mu mag ko daf koy màggal te kuy rakkam da koy sagal yërëm ko tudde ko doom te ko jox yéem sëriñ bi cheikhu xaddi ci taalibeem gaak moo boole muñ du xaddi fonkoon na cheikhi moodu awa balla fonkaale doom ya ngir lillaahi jàlla fonkaale doomi cerno yëpp yëpp fonkaale sëdiya war waxal nit ñëpp mas naa yónnee hadiya jox ko doom ja li cheikhina abdul qudusi waaja mu naa ko man sa baay bi kat yem naa ko joxe na lépp lu ma wax gëm naa ko ne déglul moo wax la tuuti ci liggéeyam doon na baay ba ci doxi ki lee gëm na cerno daa saytoo mbiram sëriñ ba noonu la daa saytoo daaru mi ngi fi daaru mu jaajuwaat ñu wax mu daldi dellu si tabax fa mbaar mu yaatu kii di jaasi in kaana sayfan xulta daa tabbaaru aw kaana fi'lan xayruhu yaxtaaru walinuhu fi zahirin taraahu wa azmuhu aarifuhu daraahu abna xayaatahu bi dikri rabbi wa xubbi ahli lxayri buxdi lxibbi maa maciishatu tulaabi fi lmakuuli kaana biha yaciishu fi lmaquuli yaa cajaban li xubbihi alqur'aani maca alcibaadati ala alixsaani bana arishan linnabi almuxtaari ihya mawlidin lahu lilbaari wa sallama alayhi llahu wa sahbihi wa kulli man walaahu tabax na mbaar mu mag ña daa fanaani màggal guddi yonen ba lil mannaani xad baana zuhduhu li ahlil wirdi wa ahli daari muxtihi lil fard alla nawiruhu min al azmaani laysa munazian li ji imaan jirim ya ak faqir ya ak ñay baayu yëg nañ demuk sëriñ ba ak ñay jaayu fonkoon na ak bokk te daa ko jokk la xeeb mbindeef mu yàlla sàkk tabam nga wër na géer ñi ak géwél ya te mës la fàtte yàlla ak mayam ya ragal ga yàlla dëddu gaa ko wóoral xamam nga yàlla sàmm gaa ko sopp bamba ak sëriñ ba ceerno soppam nga tam rasulullahi wóor na yàlla ko buur yàlla dëxal jinaani si muy fayam la dar rahmaani yàlla na giseeg ceerno te gis fa baam bamba giseeg rasulullahi may yoneen ba sëriñ bi yàlla na béyal ca biir jinaani te noppaloo te lekk na kanaani kon yow xalil delsil te ñaanalaat fi doomam yu góor yeeg yu jigéen yi ñu sax fi ba àggalet mébét yu mag yi mu fi ba woon ci diine jeeg ci aada jeeg li fi newoon cheikh abdu la yàlla def xalifa kii moo di ba a musal ko aar ko moo ki rakkam te àndandoo tewe ko yàlla na ko may ndamit wéral ko dar ko te nooyalal ko yen ba fal ya far yanal ko yàlla na cerno doon na mbooti maam ja diine ja ak xam-xam ba moo di waaja kay moodu kay moodu xelkom na yàlla may ko wér mu doon bàyyi ba am ci mbóot ya am ci cër osmaana xam teraanga yàlla na yokku te yàlla may ko ay karaama aar ko moo man dëkkam da koy teral te mënu gan loolu yi la doon ndox mi day doonuy jën bi xaqi datillahi wal asmaai naala rodan fil ardi was samaa'i sëriñ muhammadan danoy cheikh xaddi ku jóg xalu loram xam ya yal na xaddi saalixu yal na jël ca mbooti tur wa yoonam wa jub na bul ko def nig saawo cheikh moodu xawa balla yal na maare wër zëg wa yaatu fii ñu naa ko kaaru xaydara gaynde góor ña mooy aliyu yal na kawe fa yàlla may aliyu wal mustapha la yàlla tànn may ko yàlla na mi tànn ñu xëy ba fal ko sëriñ bachiru tur wa wër na suuf si ngir ngor ga mooy donal abdul xudus fonkoon na bàyyi cheikh xaddi jox ko cër ba sa àndog osmaanu may xarit ba yal na ko buur yàlla fulal taraanga tey ëllëg musal ko ci yeddanga yaatu yaatu taxul ma mat jikkooy mi ay zakaatu mbokum murid yu jëm su ndaw xaliilu mi ñang way na ko ci daliilu yal nañ ci buur yàlla defal xabulu nangul nu way wi foofu ba muy wëndee sëriñ cheikh xadim mbàkke ab xalifaam nag mooy kim faye nag sëriñ abdourahman mbàkke moom maam Cerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru ñu gën koo xam nag ci sëriñ cheikh abdou mbàkke moo ko wutu nag ci atum 2016 nag ba nëgëni sëriñ cheikh abdou moom itam nag lépp loo xam ne ni itam nag waajuram nag bawoon na ko fi mi ngi koy sàmm nag bépp boo xam ne ni na ko fi sëriñ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 bis boo xam ne nii nag dañ koy dajaloo nag ci benn bërëb fu waay toll nag ci réew mi foofa itam nag ngay toll jàngal sëriñ Cheikh Khadim Mbacke alxuraanul karim salaatu ala nabi ak nag bépp xeetu ñaan nag boo xam ngir nag suñ boroom nag jotale ko ca lii daal mooy bis boo xam ne nii nag danañ ci fàttaliku sëriñ Cheikh Khadim Mbacke baneen bis bi nga xam ne nii nag danañ ko ci jàppal daal li ñu tudde ak màggal mooy bisub màggalug daarul muxti bis boobu moom njaboot gépp itam nag danañ ànd fàttaliku nag giseb sëriñ Touba Seexul Xadim nag ak seen maam ji nag maam Cerno Ibrahima Faati Mbacke Mbàkke ndaamal daaru jagle laale ci nag seen waajur wi nag sëriñ Cheikh Khadim Mbàkke taxawaay bu yaatoo yaatoo yaatu nag ci ak ñaan ñaari bis yi daal lañ jàpp ne mooy bis nag yu ñuy fàttaliku nag sëriñ Cheikh Khadim Mbàkke ñuy ñaan ca turandoo Cheikhul Khadim wa ñetteelu xalifa maam Cheikh Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ba kañ doon dàkkantale ci turu waajuram ñu koy wax sëriñ Cheikh Khadim yàlla nañ ko suñ borom fayal nag te yokk ay leeram taas ñu itam nag ci barkeem li di jafe-jafe réew mi itam nag yàlla na ko suñ borom saafara ci dara jëy daarul daarul muxti amiin tey daarul